له سنائي غادر مسخاد لي من بني أيمان أنزاك لله كل الأعداء أبار مرماج من أدانا وفي هجم من زاك هن الذين إلى زرزار غزلوا زيارة فارغوا دارين أو su ko defee mbokku jullit yi mbokku taalibe yi su ngeen déggee xasida yooyu ñu ubbee ngeen xam ni am na lu ko waral li ko waral nag du lenn rek lu dul bisub xasaayit boo xam ne ñoo ngi koy waajal fii ci Touba Argentine lu jiitu ci loolu xanaa rek ñuy nuyu ak a ziyaara ki fi toogal cheikhul xaddim te mooy cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko di ziyaare bu baax sëriñ di moom sëñ Modou mbenn Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal njabootug sëñ Touba gi yëpp. mu mel ni jataay bii li ko waral lenn rekk la jénni te rekk la muy bisub xasaayit boo xam ne dañ koy taxawal fii ci Touba Argentine bis bi nag di tombeek bisub tabaski kon duñu guddal dañuy jox rek jëwriñ ji nga xam ne nii mooy sëñ Baye Cheikh Jenn mu woote ci mbooleem jànkatu xasida yépp ndax bis bi kat ñoom lañ ko jagleel ndax ku ne xasida na jànkatu xasida yi kon sëñ Baye Cheikh bisimilah. bisimilah barki borom Touba. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jéggalu di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wer di ziaraat jëwri ni nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay bi ak mbokk taalibe yëpp euh, wax ji nag daanaka lu gàtt rek lay doon ndax euh, ab soññee la ak fàttalante muy bis bi nga xamante ni moom lañu ndamal defal sëriñ bi muy benn ci bis yi nga xam ne daanañ ko taxawal fii ci dëkk bi mu daan tombeek bisu 9 euh, juillet ñu naan ko 9 de julio nga xam ni Euh, euh, ren dañ ko dëppale ak bisu tëbëski ndax euh, jege guñ gu ñu war a jegalentoo ñaari bis yi mu mel ni nag comme niñ comme comme niñ ko ni ko suñu ablaat waxee rek barab bi nga xam ni fa lañ koy defee moom moo nekk fii nga xam ni fi lañ gàmme woon daaw te defe woon fi màggal gi nga xamante ni moom moom la ñu mujjee màggal ci jamono yële ci ginnaaw muy fii Kanca Alvière xam naa danañ dugal direction yeeg yëpp incha allahu rabbi kon bu ko defee noonu mu ko wootee ñun waa dëkk bi yëpp ñu ñu ñu ñu maase ko waajal ci ci fànn yëpp euh, fexe li nga xamante ni moom mooy addiye ji ñu jéem koo matale teewaay bi ñu ngi ciy soññu mbokk taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp ak jàngkatu xasida yëpp ndax kat euh, sëriñ bi nga xam ni moom la ñu yaakaar comme niñ koy faral di waxee rek euh, lépp lu waaye di nettali ci ay mbiram di nga ci boole julli géej gi te ba mu demee bay nettali ay karaamay boppam loola defu ko muy karaama dañuy karaamati xat yi sama mbindum loxo mooy sama karaama kon bu ñu dee woote ab bis ngir ngir ngir ngir ngir jëmmi sëriñ boobu ak xasité yi tubbee ko bisu xasité yi kon kenn kenn benn murit benn taalibe war a des ginnaaw kon ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp incha allah mu ngi war a tombeeg le 9 wala le 10 juillet bi ñu jëm incha allah yal na yàlla def tawféex ñëpp fekk ko ñu dem ci bisimilahi rahmaani rahim am ci ndamu sëriñ Tuubaa barke borom Tuubaa waaw ku ne bisu xasida wax alquranul karim ndax sëñ Tuubaa lépp loo koy wooteel da nga caa war a jiite alquran ndax rafaani alquraana rafaana man shaahu taqaddumi fan xafadaa mu mel ni kon xasida gi alquran gi moo ko jiite kon nag bis bi du mën a ñàkk njàngum alquran mu mel ni dañuy jox sëñ Cheikh Ibra mi nga xam ni moo fi teewal ëhlu euh, alquran su ko defee mu soññee ak ni nga xam ne nii noonu lañu war a doxalee njàngum alquran bi sëñ Cheikh Ibra bismillah bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bu ñu ñëwee mbokk jullit yëpp rek di jël ab nuyoo ko siyaar di ko tekki loxol jëriñ jotaay bi suñu Mortalla Sall di ko ñaanal su borom subhaanahu wa mu defal ko tawféex ba li mu bëgg ci liggéey suñu tubaab mu am ci lu kawe njort ñaanal suñu Muntaxa suñu borom defal ko li mu bëgg ci liggéey suñu tubaab mu am ci lu kawe kawe njort barke suñu Tuubaa ginnaaw bu ñu fi jógee ne daanaka dañuy gàttal kàddu yi rek di soññee comme noonu ko jëriñ suñ bàyyi seen suñ bàyyi seen jenn waxee di soññi mbooleem waa ahlu alxuraan ñëpp rek képp koo xamante ne yaa ngi ci biir Argentine ak Brésil ak fu waay man di nekk ci biir ak bitti yëpp rek ñoo ngi lay woo ci bis bu màgg bi nga xamante ne dëgmal nañ ko muy bisub xasida sëriñ bi nag li mu maanaam ku ne gis na fi mu tegoon alxuraan ak wàccuwaay bi mu ko jox ndax kullu muridin fa lu ñu dum tiraamatan li xëyri sikri xalusim kon alxuraan da koo jiital ci lépp kon ñoo ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp mbooleem kuy safa alxuraan wala kuy bëgg rek ñoo ngi lay woo ci bis bi. kon ñu jox rek jëwrin sañ Bamba Ñang mu soññee su noppee ñu jox jëwrin Talla sàll mu daal di tëj yi rek ñaan sëñ Bamba bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp kenn ku ci ne jox wàcc waayam sëñ borom jox xanaa di leen jottali nuyoo goo xam ni gu bàyyeegoo ci jëwriñu jotaay muy sëñ Mor Talla Sall jëmale ko ci mbooloo mi yëpp. comme noonu ko mbokk taalibe yi waxee daanaka kàddu yi sax du jar muy muy muy muy muy gudd waaye ñu xam ne rek dafa am bis bu ne sañu kanam boo xam ni e, ni ko Baye Cheikh jenn waxee léegi sañu jàmbaar jii nga xam mooy Cheikhul Khadim te kat nii moo ko waxee noonu rek la ko waxee moom kenn ku ci ne mën ngay lim lu lu la soob nan moo fi def lii moo fi def lii moo fi def lii waaye moom li nga xam ni moom la bind ci loxo boppam te wax ko mooy ni ko Baye Cheikh waxee léegi. karaamati xatu yi day moom ku ne dégg na ko te kenn ku ci ne xam na ni xasidaam yii fa mu ko doon bindee maanaam maanaam lam lam ca daan daj at barab ya xataaya at yeneen yi nga xam tey ji buñ ko doon wax ci jotaay bii du fi xaj waaye loolu yëpp di wane maanaam pas-pas bi nga xam ni moom la sëñ bi amoon bi nga xam ni moo moo ngi bind xasida yi te damay wax saa su nekk rek ne liggéeyam boobu de li muy tar tar tar tar tar maanaam sañu jëmm yi génnu ci ndax bëggoon ñoo jotee kepp wax kon nag bu ñu demee nag ba jamono jii ñu toll nii kenn ku ci ne foo foofu dem ci bitim réew ñu ngi taxawale bis yu mel nii di ko sant sëñ bi nañ xam ni kon bisu cant la cant nag dafa am lu mu làmboo la mu làmboo nag weesuwul lenn lu dul jaamu yàlla ak bernde jaamu yàlla ak bernde jaamu yàlla gi nag weesuwul nii ñu ngi koy defe nga xam ni wérd la ci ñun te mooy jàng alxuraan jàng xasida bernde nag kenn ku ci ne xam na ni moom it wérdi la ci yoon bi waaye bernde moom eh, addiye moo koy def kon noonu ko bàyyi seex soññee léegi ci wàllu addiye ji ñu ngi woo mbokki taalibe yëpp ñu gën a farlu ci loolu te xam ni kenn defalu kenn dara lu waay def sa bopp kenn defalu kenn dara lu waay def sa bopp bis bi nag dañ ko dëppaleeg bis boo xam ni bisub iid la kon ñu ngi sàqu mbokki taalib yëpp ñu xam ni maanaam taxawaayu it gi foofu lañ koy defee ci barab bi kon ñu xam ne dañoo war a teel ñëw ñun ñëpp ndax fa la ñuy jullee bu weesoo loolu it bis boobee it am na lu sëñ bi daan wax ci bisam yii loolu nag buñ ko waxee xel yëpp dañuy dem day dem ci màggal gi waaye buñ ne màggal rek dañuy xam ni mbooleem bisu sëñ bi rek day dëppoog loolu kon nag ñu xam ni duñ ne moo gën de bis bii ñu jëm waaye ñun murit de bis bii ñu jëm moo ñu gën a leneen lu dul bis boobu kon ñun ñëpp ñu way ci deng te xam ne rek bis boobu bu jotee dara dara dara waruñoo yàggal fenn lenn ñu teel a takkatoo ñun ñëpp rek teel a ñëw ci barab ba dundal ko du ñàkk xëy na sax jëwriñ dina wax programme bi ndax defe naa ni bu ma juumulu am na lu ñu tënkee waxtu bi noo xam ni eh, duñ ko fa guddee kon bu jëwriñ jëdee léegi rek moom incha allah dana yegg ci wàllu programme ñun ñëpp ñu fànnoo ko barki borom Tuubaa eh, aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara bu wóor wóor di leen jaajëfal bu baax nag ci taxawaay bi ak liggéey bi yéen ñëpp ni ngeen koy bàyyee xel ak ni ngeen góor góorloo ak ni ngeen ciy teewee di fàttali comme ni ko suñu mbokk yi fi jaar waxee rek ginnaaw bi ma nuyoo sëñ Bamba mii ci sama wet ak sëñ Baye Cheikh ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi ak mbooleem ñi fi teew ñëpp di fàttali rek comme ni ko mbokk yi fàttalee daanaka lépp mat na muy bis boo xam ne ci lañ jëm muy bisu xasida ku ne xam na ni yàgg nañ ko taxawal daan ko baaxoo di def ci at mu jot ci datub la 9 xulyo ñu koy wax 9 juillet yàlla dogal ren mu tombe ak tabaski ñu jàpp ko bisub tabaski bi ndax gën koo oyfalal mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi rek ngir kenn ku ne mu mën a jàppandi ci yow su ko defee nag bis boobu maanaam programme bi moom buñ xëyee rek ndax ku ne xam ne jullit it jullit tabaski sunnatul mu ak dala maanaam dañ ko war a teel a julli ci yoor yoor bi ndax bu yor-yor bi jàllee rek day dal di demee neneen kon su ko defee dañuy fexe ñëpp teel a teew noo féer sero incha allahu taala ñu kàbbar ko bañ sëlmadee rek daal dox jublu ci bis bi ndax lépp ak jaamu yàlla la dara génn ci sëriñ bi. su ko defee loolu bu bu jàllee tamit li ñu fas yéene mooy bu ñu demee ba ba nga xam ni añ nañ ba pare ba julli deux heures ba julli tàkkusaan rek bu ko defee mën a yeeweeku incha allahu taala delluwaat ci téye kon loolu mooy programme bi ñu dégg fàttali di ko fàttali suñu bopp. ginnaaw loolu nag su ko defee ñun ñëpp ñu bokk góorgóorlu ci bu baax ndax bis boobu bis bu am solo la euh, waaw ñu di ci woo mbooleem mbokki jullit yi ci réew mi yëpp ak maanaam fépp fu mën a nekk rek. comme ni ñu ko daan defe ci at mu jot ndax ku ne xam nañ dañ ko daan dañ ko daan décentraliser di ko yaatal ba at biin ko mujjee def La Plata bi dañoo jàppoon yeneen province waaye comme xat-xat dafee jaar te bis bi sës ñu ni nañ ko defee capital ren incha allahu bu buñ ci àggaatee ñu yaatalaat ko ci beneen province boo xam ni dañu bëgg mu daj fépp fu arsan fu yu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk mu àgg fa ci province yi yëpp ren nag ñu bëgg koo defee fii kon ñoo ngi ciy woom mbooleem jëwriñ yi nekk ci bitim biti yëpp ci province yi ak ñi ci capital beeg ñëpp rek ñoo ngi leen ciy woo ci addiya yi tamit comme merkat yi dugal fépp fooy nekk rek mu dugal ci addiyam mbokk yaa ngi ci góor góorgóorlu di ci jaayante bu baax ginnaaw loolu nag journée xasida bis la boo xam ne si mun Muntaxa maanaam dañu koo dañu koo tënkal ndax li mu wax ci jàng xasida dafa doy sëkk ci waxtaane ko ndax dañuy jànkati xasida yi nee na waxuma la tawféex waaye xaas lañ am nee na jànkati xasida yi neen na waxuma la tawféex waaye dañoo am xaas te nee na jàng xasida day tax a jege sëriñ bi day tax a jege bi jàng xasida day tax a am ngërëm ngërëmal sëriñ bi te nee na jàng xasida defar ak doomu adama moo ci gën a gaaw te yooyu dong la ñuy wër nag kon su ko defee ñu gën cee góorgóorlu te di ko sellal te di ci gën di laabirante bu baax rek incha allah kon dañuy bañ a guddal waaye ñu bokk waajal bis boobu rek incha allah xam naa bisub samedi lay dajeel wala bisu dimanche incha allah su ko defee ñu bokk bàyyi xel incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loolu rek moo waraloon jotaay bi mu mel ne jëwriñ di wax nañ lépp. te mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy woote mooy bisu xasida di ñaan fépp fu ab jullit nekk te nekk ci dëkk bi ñu ngi lay woo ci bis bi ñu bàyyi yitte yëpp ñëw teewe ko te xam na ni xasida yi moom màggal ko mooy màggal Seexul Xaddim noo ngi ñaan nag yàlla na nu ci dajeek ngërëmal Serigne tubaa ci barkeb Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.